mais boo gisee kay soof ak Ousmane Tounkara ba léegi ñuy tàngal di tàngal di tàngal c'est parce que dañoo dem ba ci biir ñu gis ne lii raam ci ñag ba la jëm xam nga lan mooy raam troisième mandat wu Macky Sall mooy raam suba la makki Sall di def di indi premier ministre jaajëf Rokhaya Ndiaye gars yi est-ce que yëg ngeen loolu Macky sàll suba lay tabb premier ministre te si tabb premier ministre bi. dinañu gis ne Macky Sall xaajagul bay pare kan lay nommé premier ministre am na ñoo xam ne dañ ne ku mel ne maam Amadou Diop lay nommé premier ministre maanaam koo xam ne kenn xamu ko man yaakaaruma loolu man yaakaaruma loolu suba Macky Sall ku muy nommé premier ministre ku am doole lay doon ci APR man loolu laa jàpp xëy na sax Mimi Touré la ko bëggoon def xam nga mais Mimi Touré fi mu nekk nii gedd na Macky Sall mënu ko def premier ministre gars yi mën naa Mister Shake xëy na Macky Sall dafa ndoroon ku jël koo xam ne kenn xamu ko inconnu au bataillon un illustre inconnu na ndoroon jël def premier ministre parce que jàpp na ne bu defee Mimi Touré premier ministre dina demal ba ci kanam bu defee Mimi Touré premier ministre. Amadou Ba day bañ soxna kaay tëjee la bunt bi bokk bu defee Amadou Ba premier ministre Mimi Touré day bañ bu defee Mimi Touré premier ministre Aly Ndiaye day bañ moo tax dafa ndoroon jël ku mel ne maam Amadou Diop mu def ko premier ministre mais problème bi xam nga mooy lan Macky Sall pour man Amadou Ba lay def premier ministre wala mu indiwaat biir Boun Abdallah comprendre waaw munul. mënu ko jox même premier ministre parce que mii mu gedd na parce que mii mi li muy wax wax na ko ba pare dem na France 24 non France France 24 dem na RFI mu xas Macky Sall mii mi dem na mii mi dem na France 24 non RFI dégg kii naan ma tu n'es pas sur la Tounkara mais Tounkara moo wax ngeen dégg Tounkara nee na Macky Sall day def troisième mandat dama ko tegal Tounkara moo ne nit ñi dañoo waroon génn dem assemblée. nga on ma arrête dans la tête de Tounkara mais li Sonko wax ak c'est différent Tounkara a commencé wedd tout Sonko dem bi ci mu Nous Sonko mais ci yaakaar pour Macky Sall a le troisième mandat Macky Sall le troisième mandat parce que li Sonko Ousmane Sonko ne Macky Sall ko fi ak ay cartes. parce que Sonko lan la wax dem ngeen jëli carte Sonko wax mais Ousmane Tounkara dafa ne Macky Sall rapport de force moo fi jëlé waaw légui ngeen ne ma lo wax xam lu lu nekk ci bopp Tounkara man dama leen tégal li Tounkara wax <laughs> weddi gis bokk ci man rarement lay def vidéo di technique muy wax mais dama xam ne il faut que ma tégal leen ko Tounkara mo ne Macky Sall day def 3e mandat man tam lool la wax man dama ne boo leen sàgganee Macky Sall dina def 3e mandat waaw tu peux pas dire tu peux pas dire ça je peux pas dire quoi Baba Ngou je peux pas dire quoi man waxuma dama leen tegal Ousmane Tounkara mu wax bàyyi leen ma ma jox leen kan la Macky sàll def euh, euh, premier ministre suba pour man Macky sàll kii lay def premier ministre Amadou Ba bu ko deful benn Bokk Yaakaar day tas parce que Mimi Touré li mu gedd moo tax Macky Sall du ñeme teg keneen Macky Sall Amadou Diop la teg Amadou Diop la teg premier ministre Mimi Touré gedd bu jëlee ku Amadou Diop mu ko premier ministre Bipa, Amadou Ba moy gedd Aliou ñuy yaay gedd ah ñi am doole qui ne tu pas dire que Tounkara n'est pas plus en phase n'est plus en phase il n'est pas en phase avec le président Sonko président Sonko dafa ne nañu gunge Macky ba deux 2024, vingt n'est non non Macky Sall rapport de force la xam on doit rendre le pays ingouvernable waaye yo yo yo yo nit nga gis nga nit da ngay honnête quoi mais ils ne sont pas en phase parce que li sont wax Ousmane Tounkara daf ko jël mu technique, ko mu teg son Sonko dafa ne ni ñu marqué ba Ousmane Tounkara nee rendons le pays ingouvernable Vous savez xamoo lan ingouvernable Ousmane Tounkara n'est na ñu dem assemblée nationale na ñëpp génn na ñu def ay marche bu jëree xeex ñu xeex loolu mooy ingouvernable Macky dootul am jàmm loolu la Ousmane Tounkara wax mais Sonko waxul loolu loolu tax nag ma tegal leen ko Ousmane Tounkara nag moom nee na Macky Sall du ay carte boo ko fi jëlee Macky Sall rapport de force la xam mais man li Ousmane Tounkara wax anduma ci anduma ci xam lu tax ma ne ci parce que man li Sonko wax laa ànd Sonko mooy suñu président Sonko nee na nañu gunge Macky Sall ba 2024 mais dañ koy gunge ba 2024 fi mu nekk nii xeex bi du ñu dara lu mettre le pays dans un dans une situation de chaos Pape Alé Niang nee na bu leen ko may Macky Sall Clédor Sène keroog loolu la wax bu ñu may Macky Sall prétexte dëkk bi tàkk mu ne nag comme léegi dëkk bi tàkk na damay jàpp Sonko Sonko moo tax ngeen génn mais imagine leen tey Sonko bu ne woon gars yi dem leen assemblée nationale mais gars yi il faut réfléchir Sonko bu ne woon nit ñi génn leen assemblée nationale parce que du yoon militaire yi nek ci euh, euh, euh, euh assemblée bi Sonko bu ne woon ne ñepp genn dem assemblée nationale nañu fexe ba Abdoulaye Sow du voter parce que ministre la nañu fexe ba maria Sarr du voter parce que ministre la amna benen ministre nañu fexe ba moom du voter mais ñu dem assemblée ay xex am fa nit dee fa bu boobaa la Macky Sall di wax dafa nan damay top Sonko pour appel à l'insurrection te bu boobaa buñ ko condamné. Sonko du bokk 2024 fi mu nekk Serigne Mountakha Sonko la andal. parce que lepp lu wax Sonko baye, Sonko baye. Waye Sonko bu ne nit ñi dem leen assemblée ñu ñu ñu ñu ñu xex. xeex Macky Sall day dem ci Serigne Mountakha ne ko gis nga gis nga man def na ay élection ñom ñu gane ma Tay ma ñew di di def sama devoir mu ne nit ñi génn nit ñi nag ñoo génn amna ñu dé Serigne Mountakha bu boba dina mën nañ yàq xelam. bu boobaa mën nañu yàq xelu sëñ Muntaxa euh, ne ko bunte binta tëjal ma bunt bi bu boobaa mën nañu yàq sëriñ Muntaxa non noonu demal si yaay demal si yaay damay def vidéo comprendre mën nañu yàq sëñ xel Muntaxa jaxase kook Sonko ne ko gis nga moom moo yee fitna ci dëkk bi ay xale deewaat nañ fi ngir lan parce que nee na ah moom moo wax xale yi dem leen assemblée nationale te bu boobaa Sonko dañ koy woo

Sonko loolu la xam buggul jox Macky Sall benn prétexte pour Macky Sall éliminer ko ci élection yi kon Ousmane Tounkara bu waxé nit ñi def leen génn leen génn leen loolu waru ko wax Ousmane Tounkara waru ko wax parce que tamit gis nga yow da nga ne Sonko mo suñu njiit da nga ne Sonko mo suñu njiit mais Sonko ëppoo ko làmmiñ Ousmane Tounkara ëppul lamé Sonko ëpp ko audience te Ousmane Tounkara bu né nit ñi génn leen est-ce que dafa tax nit ñi génn nit ñu génn nit ñaa ngi tuumaat mais tey li mu wax nii bu ko Sonko waxoon billahi wallahi taalahi le pays sera ingouvernable Sonko bu ne woon on va rendre le pays ingouvernable parce que Macky Sall xamul dara lu dul rapport de force bu boobaa xale yi bëri bu ñu jógee Touba dañuy jubali directement assemblée nationale mais Ousmane Sonko Ousmane Tounkara li mu bëgg Sonko du ko def gars yi a ma ko gën a xam fii ba 2024 man maa ko wax

ci yoonu Touba bi quatre cent blessés quatre cent blessés am na ci blessé yoo xam ne ay blessé grave lay doon am na ci yoo xam ne mara day taale ndeysaan foofu la ñu jógee ñàkk loxo wala ñu ñàkk tànk wala dootuñu dox comprendre wala ñu am ay gaañu gaañu yoo xam ne da leen topp mais terewul Touba la ñu gëm Touba la ñu gëm est-ce que nag may dégg waaw keroog suñu kër sama jaarbaat ba muy war a dem Touba dama ne ko ah te ngaa jël bus yu mag yi jëlal bus yu mag parce que oto yu ndaw yi wóorul mu ne moom non moom gëm na li muy gëm ñaan na li muy ñaan ci oto bu ndaw lay dugg day dem jàmm ak salaam et cetera et cetera dama expliquer rek que que nit bu bëggee génn moom mooy génnal boppam. gis nga affaire Adji Sarr Sénégal yi kenn Sonko waxul kenn génnal Sénégal yi ñoo dem mu jaral leen ñu génn Sonko bañ koy waaj jàpp fële euh, le 5 février ba xale yi dem wër këram Sonko wowoon xale yi de.

il faut que activiste yu Ousmane Tounkara ak activiste yu mel ah Ousmane mais la il faut que nous nous nous nous il faut que nous président, nous nous suñu nous suñu président wax nous président Nous devons nous Macky Sall ba 2024 dañ koy nous ba 2024 mais nous devons nous wax on va rendre le pays ingouvernable loolu yàkkamti xuloo lu ñu ko waxee xuloo yàkkamti xeex la xaw ma xaw olof di waxee mais ñun ñun position bi ñuy nekk da ngeen ko xeeb da ngeen ko position bu président Sonko nekk da ngeen chef de l'opposition yow askan bi 56, 56, xam nga ñaata député Sénégal da ngeen ko xeeb xeebuma gis nga même bu fekkee ne wàllu daf ñoo trahir te xam naa ne foofu man li ñu dama leen di tàccu ba léegi wàllu Sénégal dama leen di tàccu parce que même bu dul dara li ñu am bu ñu àndul ak wàllu duñ ko am léegi nag ñoom bu leen neexee ñu décider ñu ne dañuy parce que ñun xam nañ ne ñoom bëgguñu Sonko nekk président suñu ànd ak wàllu lay yem fii lay peut-être gars préparé wu leen ngeen jàpp ne suñu ànd ak Abdoulaye Wade ak Karim Wade xëy na ñoom fii la ñu mën a yem mais bu ñu leen xas bu ñu leen saaga bu ñu leen def dara leen daal la ñuy bañ bu ñu dundee yaakaar ñun mën nañu demal suñu bopp Ousmane Sonko mën na demal boppam ak Pastef kese kese kese ci présidentiel yi billaahi wallaahi taalaahi wallu dañ leen di gërëm di leen sant parce que bu leen neexoon ñu saboté Macky Sall am cent cent quatre-vingt-dix-neuf députés ñoom ñu am cinq députés waaw bu doon dañoo iñaane ba iñaane seen bopp wala bu iñaane woon ba iñaanee boppam cinq députés lay am Ousmane Sonko li mu am lay mën na am sax lu ëpp loolu yow askan bi mën nañu am bu boobaa mën nañu am euh, ba quarante non c'est vrai que dina wàññeeku mais mën nañu am ba ay quarante députés Ousmane Sonko mën na am vingt sept trente députés comprendre kon wàllu bu fekkee ne fexe ne ba Macky Sall am problème ba Mimi Touré jégg tey ñu ni ñoo ñoo ñoo ñun ñooy majorité ndax Mimi Touré bàyyi na Macky Sall Macky Sall bu ne ko kaay ma def le premier ministre da koy day bañ Mimi Touré day bañ parce que dafay xam ne Macky dafa bëgg nangu daf ko bëgg génne assemblée waaw léegi Mimi Touré li tax mu li mu def am sens te dafa dimbali Amadou Ba Mimi Touré dafa dimbali Amadou baax man gëm naa ne Macky Sall Amadou Ba lay def premier ministre waaw man gëm naa ne Macky Sall Amadou Ba lay def premier ministre bu deful Amadou Ba premier ministre mu def ko Aly Ngouille Ndiaye te man lii laa gëm Amadou Ba lay def premier ministre Aly Ngouille mu def ko ministre de la justice par exemple xëy na Malick Sall day dem wala mun na fa sax bàyyi Malick Sall mais en tout cas Aly Ngouille Ndiaye dina am portefeuille bu baax parce que ñooñu il faut que Macky génne leen assemblée Macky Sall wóoluwul Amadou Ba ci assemblée bi parce que dafa am doole te Amadou Ba bu ñu demee ba mu des ñetti weer ci élection yi. bu ko nexé mu ne man li mu Touré lay def te Amadou Ba bu boba day xëccalé ay nit parce que Amadou Ba dafa am xaliss ali bu Ndiaye amna xaliss ali bu Ndiaye mën na xëcc ci ñeent cinq député ñëw leen nañu nañu ge nañu xéx makki kon makki li muy def xam nañ ko Amadou Ba lan dara def premier ministre wala Boun Abdallah jonn mën na ko woowaat comprendre wala mu woo Aliou Ndiaye gëm mën a mën premier ministre mais Aliou Ndiaye dina nekk dina am ministre de l' intérieur waaye Macky Sall du dàq Diome eh, eh, eh, Macky Sall du dàq Diome parce que Diome mi ngi mi ngi koy defal en tant que ministre de l' intérieur léegi Aliou Ndiaye dinañ portefeuille bu pour position pour mais man gëm ma. gëmuma ne Macky Sall li mu def jël koo xam ne kenn xamu ko un inconnu gars yi euh, dañ ne suba la Macky Sall di def euh, gouvernement bu bees bi suba la koy def suba suba dinañu xam premier ministre Macky Sall gëmuma mu dàq ministre yu bëri gëmuma ko ministre yu bëri dañuy garder seen portefeuille man loolu lu ma gëm la Ndeye Saly Dieng Macky Sall yaa yaakaaruma ne dina ko dàq parce que Ndeye Saly dafa am doole Grand Dakar comprendre waaw Legi, est-ce que dina dak euh, Aminata Mbengue Ndiaye pour jël kenn def ko euh, au conseil mën na ne est-ce que dina dàq euh, Idrissa Seck pour jël ben ministre yobou ko fofu lolou mën na ne parce que Idrissa Seck amatu ko njëriñ Idrissa Seck amatu ko njëriñ mais mën na aussi mu bàyyi fa Idrissa Seck parce que tamit xam nga gor da nga wara nek gor da mais bu jëlee ku mel Amadou Mame koo xam ne dafa bokk sa famille ci famille du ko def xanaa nag Macky irresponsable irresponsable li irresponsable irresponsable bu ndóbbi rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw yow da ngaa jël koo xam ne kenn mu nekk sa mbokk ci li wax wala xarit ne Amadou Diop def premier ministre.